télévision Futurs Médias mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi dellu di leen siyaare bu baax a baax di leen ndokkeel di leen baalu xaq di leen baal àq eh, tey ñaan yàlla suñu borom subhaanahu wa taala mu jéggal ñu itam mboolem suñuy bakkaar yàlla defal ñu tawféex defal ñu mucc eh, ba ci bis bu màgg bi nga xam ne moom la ñu dëgmal mu di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar waraloon xarajtu yawma sabti saamini hasar ja li xidmatil muxtaari fii sahri safar. télévision Futurs Médias nag eh, di ci taxawal jataay yu am solo eh, gis ngeen ko bi ñu ko dooree ak léegi tey jëlee ci suba ak léegi eh, yaakaar naa jon nañ fe waxtaani mag ñu fasante ko te kenn mënta tudd yoonu murit te tuddoo mag ñi nga xam ne ñoom ñoo taw yoon wi ndax bu dee liggéey la defal nañ ko Serigne Touba bu dee bëgg la defal nañ ko Serigne Touba ci fànn yëpp nag liggéey Serigne tubaa ci alxuraan liggéeyal Serigne Touba ci sunna liggéey Serigne nag ci woote bu am solo bi nga xam ne euh, euh, ndigalul yàlla la ci am jaax ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, mag ñooñu nag bokk ci Serigne daaru Assane Ndiaye mi nga xam ne moom la ñu fas yéene waxtaanee tey jile ci jataay bi ñu dalal ci nag borom xam-xam bu mag boo xam ne yaakaar naa bu ñu ko présenté danañ xam ne li arab di tuddee li ko li makaanin maqaal muy jataay bi daal kon jox nañ euh, ko ki nga xam ne mooy euh, ki fi war a toog euh, Serigne Modou Assane Ndiaye ngeen image sam waxtaana nañu ak moom ci ay jataay yu fasanti daaw ba daaw jéeg bu ci nekk invité nañ ko ci plateau bile mu waxtaane jàmbaar joojale di Serigne Darou Assane moom Serigne Modou Assane Ndiaye mii nag ñu di ko dakkentale Serigne Modou Assane Ndiaye Maroc mu doon sëtu Serigne Darou Assane Ndiaye doon itam coordonnateur comité scientifique Euh, bu kër Serigne Darou Assane Ndiaye doon itam professeur euh, linguistique arabe euh, ci université Cheikh Ahmadul Khadim bi nekk fii ci dëkk bu sell bi di Touba Mbacké kon xam nañu ne borom xam-xam la ñu jàkkaar lool koo xam ne yaakaar naa ne bu ñu waxtaanee ak moom li mu war a sotti ci xam-xam ñu war a waxtaanee nag ci ay tomb yu fasanti ko ci dunduk Serigne Darou Assane Ndiaye ndax ñoom dañu ñoo xam ne géej lañu. Eh, wet gañ ca fare rek ngay jàpp ne ñoom fii rek la ñu manee waaye nag moom danañu duggal ci ay côté yu bëri ñoo xam ne Serigne daaru Assane Ndiaye kàngam la woon eh, daañu ko fas yéene waxtaan ñu xam dëgg-dëgg mooy kan eh, di profité bu baax di ñaanal ab xalifaam suñu borom dolli ko fee yàggal bu baax te dolli ko wéral ba lim yéene ci liggéeyal ko Serigne Darou Assane Ndiaye liggéeyal ko Seexul Xadim ci yoonu murit suñu borom kattanal ko moom itam mu liggéey ba def ci nu kawe njortam Serigne Modou Assane Ndiaye du ñu guddal dañu lay bàyyi nga nuyoo ak suñu mbokku téléspectateurs yi nga xam ne euh, saa setem bi ñu ngi ñuy siifur ci télévision Futurs Médias ñu lay wax salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Mhm. jërëjëf sëñ Mamor ñu ngi lay nuyu. di la ziar di am mbégte bu baax nag ci jàkkaarloo waat ak yow. Mhm. di ñaan suñu borom ñu jàkkaarloo waat yeneen yeneen yeneen année yu bare bari amiin yaa rabbi di ñaan suñu borom wax dëgg yàlla nit nga ku ñuy suivre nit nga koo xam ne xam nañ la ci gëstu. Euh, ci lu bëree bari gëstu boo xam ne yëg nañ ak bu ñu yëgut ci sëñ Jaaro Xasan mm. toog naa rek nga jékki-jékki yónnee ma message envoyé may audio yoo xam ne ci sëñ Jaaro Xasan koo ko def kon lool nag dañ la ciy sant bu baax di la gërëm euh, bu loolu weesoo ñuy nuyoo di nuyu mboole mbokki taalib yi ak mbokki jullit yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan mm. di seetaan chaîne bu mag bi di TFM mm-hmm. fu ko mën a seetaane ci biir réew mi ak ci bitim réew mm. ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar mm-hmm. di nuyu bu baax njabootu kër gi nga xam ne këru TFM ba ñu ko waxee wala wala ñu ne GFM rek mu gën a yaatu groupe mm-hmm. Futurs Médias mu gën a yaatu ñu ngi nuyu mbooleem ñi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk mm-hmm. eh, di ko tàmbalee ca bopp ba muy président Youssou Ndour mm-hmm. ba ci mbooleem ñi nga xam ne ñoo fa nekk rek ba ci gardien ba ci ci bunte ñëpp ñu ngi nuyu eh, boobu ak boobu ñu juti jiital nag ki nga xam ne moom moo fi toogee jataayub Xasan muy Serigne Abdou Khadir Ndiaye ndax eh, li wax rek waxtul buyuuta min abwaabiha dëgg la bu fekkente ne da ngay jaaral ci bunt bi mu ngoog booy mm-hmm. dikk booy dugg fenn dangay jaar ci buntu ba mm-hmm. te bu ñuy ñëw fii yàlla ak ndigalam moom lañ fi ñëwee ndax dañ fi ñëw teew fi ci mm-hmm. ndigalul euh, sëriñ sëriñ Ibrahima Jëmb mi nga xam ne moo yor kàddu kër ga waaye teew fi ci ndigalul sëriñ Cheikh Mbay Faalo mi nga xam ne si ne majlis bi nga majlis majlisul usra bi nga xam ne mooy instance bi gën a mag ci kër Sëñ Daaru Xasan lëkkale mbooleem kuréel yi kër Sëñ Daaru yi nga xam ne li ko tënk mooy li ñu tuddee jamaatu ahibaaw Cheikh al Hasan mbooloo moo xam ne mbooleem soppe ak taalibe yi sëñ Daaru Hasan yi ñoom ñoo ko séq mm-hmm. mu am nag benn majlis bu nekk ci kaw boo xam ne moom moo coiffé loolu yëpp ak yeneen dawaa ir yi Minanul Baaqil Xadim ak yeneen yëjës yëpp mm-hmm. ñu ngi nuyu mbooleem mbokk yi nekk foofu te di leen ziar sëñ Maam Moor xam naa damay bañ a guddal rek bu ko defee ñoo jublu ci waxtaan wi <laughs> jërëjëf jërëjëf euh, sëriñ bi ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant ci nuyoo bu matali bu am solo boobule Eh, ñu fas yéene waxtaanee koo xam ne nag eh, faaw ñu coiffé ko ak ay laaj yu am solo yoo xam ne eh, bu ci nekk yaakaar naa bu ci tontoo daañu xam ne Serigne Darou Assane Ndiaye ku mat a waxtaanee la alxuraan nag dafay faral di wax lu am solo mooy nit kat bu fekkee suñu borom nar na koo baaxal da da koy tànnal askan wu baax ndax alxuraan dafay wax ne ku baax ko fi mas a jaar. yàlla daf laa tànnal askan woo xam ne kenn du ci am lu mooy xebat bu ñu jàngee xisab euh, yonente yàlla noox mhm. alayhi salaam kero ba ko ay mbokkam di yedd mhm. euh, euh, sayyidatuna Maryama laa bëgg a wax mhm. kero bañ koy yedd jàpp ne dafa juum lañ ko wax mooy maakaana abokim ra asaw in wa maakaana tumuka baxiyan ndekete kon askan wu baax dana waral ñu séentu ci ñoom ak mbaax loolu alquran naan wal baladu tayyibu yaxruju nabaatoo bi isni rabbi contraire ba mooy wala si xabu salaa yaxruj ilaa nakidan eh, kon eh, sëriñ Darou Assane Ndiaye la ñu war a waxtaani eh, aw askanam bëgg nañoo xam kan mooy sëriñ daaru Assane Ndiaye sëriñ Darou Assane Ndiaye mooy kan ci cosaan mhm. kan mooy sëriñ Darou Assane Ndiaye ci juddu mhm. kan mooy sëriñ Darou Assane Ndiaye ci jikko loolu mooy suñu laaj bu njëkk. incha allah kon lii. Mhm. avant la avant la yaakaar naa xam nga fi ma <laughs> waxee. bu baax mu ngoog. <laughs> alhamdulilah alladi malaa quluba awliyaihi bi nuuri mahabbati. Mhm. wa zayyana arwaahahum bi shuhudi azamati. fa kaanu li ahkaamihi mustaslimin. Mhm. wa li awaamirihi mud'inin wasalaatu wasalaamu al atimmaani al akmilaani ala imaami al anbiyaai wal mursalin wa qudwati al ulamaai al aarifin sayidina wa mawlana muhammadin saadiqi al waadi al amin wa ala alihi wa sahbihi wa xayri xadimihi wa ummatihi wa barar wa muridihi al barara al muttaqin wa man tabiahum bi imaanin wa islaamin wa ihsaan ila yawmi din sëñ Mamor da nga posé question bu am solo boo xam ne képp ku ñuy waxtaane yoon la ñu xam ci yow ñett yooyu mooy yow la kan mm-hmm. ndax yow la kan moom mooy définir sa identité dëgg ci juddu mm-hmm. ci jikko mm-hmm. waaye ci diine bu ñu ñëwee ndax lan moo tax importance waxtaanu waxtaane ku baax alquran dafa waxoon yonte bi alayhi salaatu wasalaam ne ko wa kullan yéen ñëpp naqussu alayka min ambai rusul maa nu sabbitu bihi fuaadak damay waxtaan dañ yéen ñëpp yonent yi fi jaar kenn ku ci nekk ña jiitu ci ay yonent bu ma lay bu ma lay yónnee bu ma la yónnee dinaa lay nettali histoire ñu jiitu mm-hmm. ndax lan wa rusulan qad xasasna alayka min qablu wa rusulan lam naqsusum alayka alayka jayid mooy am na am na ci ay yonent yoo xam ne nettali naa la seeni jaar-jaar am na mm-hmm. ñoo xam ne seen nag tudduma leen mm-hmm. waaye lan moo tax mu muy nettali jaar-jaar ñooñu ñu baax ñooñu maa nu sabbitu bihi fuaadaka pour dëgëral sa pas-pas kese parce que yonente bi alayhi salaatu wasalaam yow ak loo man a loo mën a daj hmm. bu ma la waxee ne la yonente yàlla Isa dañ ko pendre hmm. li nga daj dana dana woyof ci yow bu ma la waxee ne la Zakaria dañ koo xar ak garab loo mën a daj dana dana sa pas dana dëgër dëgg la ba loo mën a daj da ko mën a muñ ndax jaar-jaar yooyu yonent yàlla Yunus yonent yàlla Yunus ba ba ko ba ko jënoo wannee hmm. kon yooyu yëpp importance waxtaane ku baax mooy lan dëgëral sa pas-pas ba yow li nga nekk lum mett mett doo ci yokkat kon maa nu sabbitu bi fu aadak mhm. wa jaa aka fi haatihi l xaqu mhm. ci histoire bi ma lay nettali dëgg da ciy am mhm. luy tax nga mën a nangu dëgg luy tax foo gis dëgg rek daw jëm ci dëgg la wa mawisa da nga ciy waaru it dama la ciy waar wa dikra waaye dama lay fàttalu ndax wa dakkir fa inna dikra tanfaul muminin kon loolu mooy importance waxtaane ku baax ndeysaan yonent bi alayhi salaatu wasalaam teg ci ne sëñ ma Moor fu ñuy waxtaane ku baax malaayika yërmaan yi dañ koy tiim Mhm. di fa sotti ay yiw ba keroog waxtaan wi di jeex wa hinda zikri salihina tanzilu rahma tanzilu rahma am ñu ne tatanazzalu rahma mm, wallaay ñaar yëpp ñaar yëpp a baax wallaay kon fépp fu ñuy fu ñuy fu ñuy kiyee rek mhm. dañ fay dañ fay wàcce aw yiw kon ñu ngi ñaan suñ borom yiw woowu mhm. yàlla na dotteeku ci suñu kaw ñun ñi koy waxtaane tey sax beneen bi ci dooleeku euh, bala ngay dugg ci xissa bi mooy euh, li yàlla waxoon yonente bi ci al alquran mooy jaaral ci yoonu yonente yala jiitu woon say maam mm-hmm. say baay mm-hmm. wa tabax milata aba i ibrahima wa isaqa wa yaqub mm-hmm. waaye lay solo sa mooy maakaana lana an nusrika billahi min shay la nga war a jële rek mooy ñoom daawuñu bokkaale seen borom kon ndekete waxtaane ku mel ne sëriñ Daaru Asan Njaay dafay dolli at taqwa dafay dolli nit ki ak ragal yàlla dana am koo xam ne bu ñu ko waxtaanee ci kanam bu pare day jàjjuwaat góorgóorluwaat parce que xam na ne ndekete yoon wi góorgóorlu moo koy maye dara am na ñoo xam ne góorgóorlu nañ ba àgg fi ñu kon loolu moo tax ci laay ci laay dafa benn kii rek dugg ci mhm. li ma laaj muy kan mooy sëñ Darou Hassane mu goog sëñ Darou ci wàllu juddu mhm. suñu borom daf ko def mu bokk ci askan wu mag mhm. muy askanu njare muy askan woo xam ne ci cosaan mën nañ wax ne ay buur lañu woon laata ñuy nekk ay sëriñ waaye bi ñuy nekk ay buurit ay buur juddit lañu woon ndax askanu njare mi ngi soqi ko ci njaajaan njaay Njaajaan Njaay ma nga xam ne moo njëkk a ci l'empire de Jolof mhm. kooku mooy seen maam est-ce Njaajaan Njaay moomu mhm. ci téere yi ñu liir euh, la royaume de Jolof mhm. maanaam bokkoon na ci charte yi nga xam ne moom mooy fal nit buur mooy day mokkal alquran kon kon état islamique la ma doon mooy kon malgré ay nit yi àddina la ñu woon waaye même bi ñu nekk ay nit àddina ay nit yi ay nit yi ay nit yi ay nit yi diine la ñu woon ay nit yi xam-xam la ñu woon mu am ci nag bi bi yëf yi di wàcc nag di wàcc ci sët yi dem ba àgg ci koo xam ne si ne suñu borom daa dogal euh, benn bëtam gisut mooy dafa xawoon a pat ñu di ko wax Ousmane Ndiaye tam gën a siiwee ci maam Demba Njare Demba Njare moomu bi mu demee ba war a falu nga xam ne maanaam ci jamono bi bi buur bi buur ba ba mu sës ba mu faatoo bi ñu xoolee ci njaboot gi ku ko gën a légitime amut ci wàllu ab juddu ak ni ñu doon nattee ni ñu doon nattee état état ki jolof ni ñu doon nattee ci ku fa war a falu ak nooy faloo nangam nangam du ma ci dugg ndax day xaw a kii mhm. waaye dañuy yem rek ci moom bi mu légitimé war a kii patt bi mu patt bi bët bi patt mhm. tax na ñu ne ko yow mënoo nekk buur mu gàddaay nag nguur ga daal di dem jàngi daal di sóobu nag ci yoonu xam-xam ak jaamu yàlla hmm. loolu moo ko def mu dem di jaamu yàlla di jaamu yàlla ba bokk na ci mag ñi nga xam ne Serigne Touba bi muy wër gaa yu baax yi ba naan fa jultu bayna al ulama wal awliya mm-hmm. xam ndax yaa ngi koy dégg wallaahi wala danaay dégg nga di ko wax sax mm-hmm. jamono bi mu wër gaa yu baax yi maam mm-hmm. Demba Njare moom bokk na ci ñam seeti woon ca ca ca ca ca fële ca euh, Njàmbur moom moom sëriñ bi moom sëriñ bi kon ci la jaamu yàlla ba am ak am ab cër ci diggam ak boroomam ba nga xam ne ay kiimtaan yu mag doon na ko def sax ndax àgg na ci bi muy bi mu gàddaayee ba dem jàngi ba ba bay wër fu mu am benn benn jigéenam bu réer bu ñu wax njare mu di ko wër wër gi koy wër dafa tax dafa dem dem dem ba ci benn dëkk mu fekk fa benn buur bam ko fekkee mu mu mu fanaan ca bitti bitib dëkk ba la fanaan ba mu xëyee ba guddi yàlla dogal guddi gi muy taw xista bu bu siiw la nag bari na ci ay ñuñ koy wax waaye ci gëstukat yi bi ñu bi ñu bu ñuy waxtaan xam nga mag ñi dañ doon am ay secret yoo xam ne kii da koy yor kee yor ko kee yor ko keneen yor ko bu ko defee ñoom ñëpp mën nañ koy defandoo xista bi ñu ñettali ko ci ñu bari dëgg la Euh, xista boobu xista bu bu bu wér. Mhm. wax nañ ne bi muy ñëw foofu daa fekk timis jot bi timis jotee. Mhm. mu xiin di taw taw bu bari yàlla dogal mu rëdd wenn rëdd. Mhm. moom ak njabootam gi mu àndal. bañ xëyee rëdd wa fenn rëdd wa aw toq ndox dalu ci. est waa dëkk ba biñ ñëwee gis gis loolu. bañ delloo wax ko buur buur ba ba mu ñëwee moo ko moo ko tudde na ko yow dem ma njare yàlla nga. maanaam xam comme ñoom seen pas-pas dëgëru mu bëgg koo def mu bëgg koo def <laughs> voilà jikoy ceddo kon kooku moo nekk mooy maamam mhm. pour pour wax la rek ci mhm. def benn briefing bu ndaw ci maamam jooju mhm. euh, mu gënee nag ci askan woowu ku ñu wax sëñ Mouhamadou Ndiaye di way juróom bu góor te ñu gën koo xam ci sëñ Mor Fatim Sarr sëñ Mor Fatim Sarr moom ku ñu wax Sayar Sayar Maram Thioy moom moo ko moo ko jur Sayar Maram Thioy moom moo moo sanc dëkk bi nga xam ne fi la sëñ Jaaroo Xasan gane jamono hmm. te mooy ñu di ko wax njare njare njare sayer sayer hmm. maram cooy moom ku ñu wax ma njaay Fatma Jeng moom mooy waajuram hmm. ma njaay Fatma Jeng sàmba suuna après maam ma Njare moom comme noon la silsila boobu la am ci ci wàlluk wàlluk askan mooy ci benn wàll nitu maanaam askan askanu njare askan lañ woo xam ne si ne wàllu xam-xam ak jaamu yàlla ak liggéey ci loolu lañ ma a nekk ba sax askan la woo xam ne jamono yi nga xam ne buur yi ak ak ak ak ak ceddo yi wala boog euh, mustamiruun yi te muy colon yi ñi ngi ci dëkk bi mm-hmm. di di jaxase dëkk bi lu nañu di ko fi def mm-hmm. booba ñoom fa ñuy dëkkee benn mm-hmm. mintaqa amina la maanaam ruq la woon boo xam ne kenn daawu fa jaar sang dafa sangewu daal dañ koo sangoon ndax bokk na ci liñ siiwe woon sax mooy am nañ dëkk boo xam ne ku ca dugg boo amee ndomba tànk dugg fa booy dem ñu lay dàq moo tax benn borom ndomba tànk ba ñuy laaj impôt sax daawuñu fa dugg est-ce ñoom kon dëkk ñu mel noonu ci la sëñ Jaaro Xasan gane jamono wér la xam naa ko ci waa ci wàllu juddu kon kooku la bu dee ci wàllu jikko allah sëñ Jaaro Xasan dafa bokkoon ci gaa yi nga xam ne dañoo jóg rek jublu seen borom hmm. la sëñ Tuubaa doon naan lam an xumaalam yu fi di mosuma jublu lu amul njariñ sëñ Tuubaa moo ko lam an xumaalam yu fi di hmm. sëñ Jaaro Xasan dafa jóg rek jublu boromam ndax dañuy nettali ci bi muy jàng dem na ci benn woy juróom boo xam ne ñu di ko muy sëñ sëñ sëñ sëñ Mouhamad Kan nga xam ne hmm. bokk na ci ko jàngal wax nañ dafa mas a toog jël weewam bi jam ko ci tànk bi jam ko jam ko ba weewi dugg mu ne ko ndax yaa ngi ko yëg mu ne ko waaw mu ne ko na nga jàmm na nga jaamu yàlla ba yëge ko noonu allahu akbar mu ne dafa dégg loolu loolu mooy xanaa wax bu rabbaka xataa yaatiyeekal yaqin xataa yaatiyeekal yaqin ba tey mën nañ ko koo dégg rek mën nañ koo dégg noonu nga xam ne maanaam ci maa delloo si sax macha allah moo tax sa réplique yi am na solo trop maanaam euh, gis nga gis nga sëñ Jaaro Xasan mhm. dafa bokk ci ñi nga xam ne mhm. liñu li alxuraan naan minal muminina rijalun sadaqu ma la alayh mm-hmm. ñi nga xam ne lañ dëxalante woon ak seen borom dëggal nañ ko mm-hmm. lan lañ dëxalante woon ak seen borom alxuraan dafa waxoon ne inna mm-hmm. aratna al amaanata ala samawati wal ardi wal jibaali fa abayna an yaxmilnaha wa ashfaqna minha wa xamalaha al insaan innahu kaana zaluman innahu kaana zaluman jahula mooy nit lool mooy mauvaise ba mooy nit bu fekkonte ne comprendre na du nangu nit ci xeer yeek suuf si def noonu lay def amaana bi mooy lan mooy ñett yi mhm. xilaafatullahi fil ard inni jaailun fil ard xalifa dëgg la malaayika yi ne ko lu tax mhm. atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bi hamdik wa nuqaddisu lak <laughs> ndax da fi fiy wàccee koo xam ne ah dafay dafay tuur deret dëgg di di def lu bon di yàq suuf si yàqu suuf si mhm. ne ko am na ñoo fi wàccee woon kat muy jinne yee xam nga ndax mhm. yaa ngi fàttaliku jinne yee xewoon wallaay bañ fi ak liñ fi yàqe woon suuf si mhm. ñoom malaayika yi ñoom loolu lañ dund ne kon bu fi wàcc waatee doom beneen xeet bu dul ñoom la defoon rek loolu la ñuy defaat waaye yàlla ne leen lam leen tontu yàlla ne leen ne leen ne mala inni aalamu maa la maa la taalaman xam naa lu ngeen xamut xam naa li mooy dara ci lim def ci doom aadama loo xam si defu ko ci defu ko ci ñoom dëgg la kon xilaafatullahi fil ard mooy mooy mission bi njëkk ci doomu aadama bi mu war a def ci kaw suuf mhm. ñaareel bi mooy istimaarul ard mhm. wala imaaratul ard mooy dundal suuf mhm. huwa alladi anshaakum min al ardi wastaamarakum fiha wallaahi maa leen wàccee ci kaw suuf mais dama leen sant ngeen dundal ko ñetteel bi mooy jaamu yàlla wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yaabuduun sëñ Jaanu Xasan nag dafa nekkoon koo xam ne ñette yooyu daf koo daf koo def ba mu mat mooy dafa wuutu woon boroomam ci kaw suuf ci mhm. defar jaam ñi mhm. ginnaaw bu ko sëriñ bi defaree ba pare mhm. dafa wuutu boroomam wuutu sëriñ bi ci defar jaam ñi ci defar doomu aadama yi maanaam daal yëgoon na ne moom kuutaatu suñu borom la ci kaw suuf yëgoon na ne da ko waroon a yëg yëg parce que ñu bëri dañ ko yëgul jeex na tàkk mooy du moom du moom rek moo war a defaru uh-huh. mais dafa am mission wu defare ok xam nga loolu am na koo xam ne moom bu defaroo baax na bu defaree wut garaawut en tout cas moom baax na defaru na mais am na koo xam ne dafa war a defaru hmm. mais en même temps dafa war a defare hmm. mooy man mooy yow hmm. buñ ko xamee buñ ko xamut mooy ñeneen looloy dëgg voilà loolu mooy suñu mission <laughs> alors euh, kon mu mu mu mu mu yëg mu yëg mission boobu ñaari mooy istimaarul ard ndax ginnaaw bu mu delloo ci borom bu mu delloo jógee ci sëñ ba dem dafa sanc ay dëkk dëgg la di fa liggéey mhm. mooy di bay mhm. ngir lan ngir mhm. loo xam ne dana ci mën a fàggu lu lew loo xam ne dana ci sàmm ngoram fàggu it loo xam ne dana ci mën a joxe ay addiya gis nga ba liggéey boobu moo ko yóbbee wax nañu hadaaya yi doon dem ci sëriñ bi maanaam ñi daan yóbbu hadiya yi bu ñuy ñëw dañuy dajeek bu ñu wàññeeku dañuy dajeek yeneen fas yi yóbbuwaat yi dem ñooñu bi ñu ñëw dajewaat ak ñeneen ñu yóbbuwaat loolu nag yëmu jëlewu ko rek ci ay addi yu ñu koy jox mu ko yit sëñ bi mhm. mais moom da doon liggéey ndax sanc na ci dëkk yu ñu xam yi mu sanc boppam mhm. sanc na ñetti dëkk mhm. xëy na danañ ci ñëw buñ ci àggee waaw incha allah euh, bu dee ci wàllu beneen bi mooy jaamu yàlla nit la woon koo xam ne ku fonkoon jaamu yàlla la moom moom moom dafa dafa bëggoon boroomam boroomam jaral ko nag mosu cee masla du njaboot du doom du soxna du lenn dana maanaam dana doy misaal rek bu ma la joxee ne la sëñ Daaru Xasan am na kenn ci njabootam koo xam ne ci ay soxnaam la bokkoon dafa am bés weeru koor xam naa koor gi metti na liggéey bi metti dëgg la mu xëy benn bis rek ndeysaan yëf yi jàpp ko mu dog mhm. boo ko sëñ ju yëgee dana ko dana ko dana ko kafaara ci koor ñett yii la mhm. mooy itaamu sittiina miskin leel miskin mooy woor mhm. ñaari weer ak goreel ab jaam goreel ab jaam mu ne ko yow Mm-hmm. amoo jaam boo goreel mm-hmm. amoo alal joo mën a leele juróom benn fukki miskin mm-hmm. kon nag ñaari weer yi nga mën a woor da nga ko woor taxawu ko ci di ko woor ba kooka ndeysaan dafa dem ba bu dafa mujj loof ba loolu moo ko mujj jël génn àddina nga xam ne dafa dem ba da doon teg nit ci jaamu yàlla loo xam ne dana dem ba du ko mat nga xam ne sariha moom du ci caaxaani lu toll ne tarfat du ci maslaa dara ci maslaa waxuma la caaxaani waaye maslaa sax du ko ci am wu ci am na keneen koo xam ne ci njabootam ku ko jege la bokk moom itam bi liggéey bi demee noonu ku góor la bi liggéey bi demee noonu mu dog da ko génn këram. est kooko ba ni sëñ Darou Hassane génnee àddina ñëwaatu ci kër gi. allahu akbar. waaw buñ ndax liggéey tax mu dog ci weeru koor. liggéey bu metti bu tax mu dog ci weeru koor. foofu la tegoon jaamu yàlla. Mhm. yëmu ci mais dafa am dafa am bés. dañuy ne mais dama koy tënk rek dafa am bis. Mhm. maanaam ñu ñu ñu ñu ci ci tool yi tool yi mu mhm. nekkoon. ñu defa sàkket di euh, fetañ mi ngi toog lal ab siyaadaam. wax nañ ne am ñu toog di ataaya. nga xam ne ñi ngi ñi ngi fetañ ñi ngi ataaya moom mu toog di jàng alxuraan mhm. kii ataaya bi mu noppee ba jël kaas ataaya bi jox ko mu teg ko ci siyaada bi mhm. bi mu ko tegee ci siyaada bi laata mu koy jëfandikoo rek ñu nodd mhm. bi mu noddee mu bif siyaada bi bi mu ko bifee kaas bi dafa tëb suñ borom def taw feexi kaas bi mu tëbee dafa teguwaat te tuuruwut allahu akbar mbooloo ma fa toogoon xaw a jaxasoo yuuxu mu ne leen lan la lu xew ñu jàpp ne xar baax la ci jublu xar baax la ci jublu lu xew moom rek la gisoon xam nga lu mu leen wax <laughs> bu fekkoon nodd nañ waxtu yi ba mu daanu te julliwu ma bu waa na ngeen xam ne lii yëfi seytaane dong la daray borom bi nekku ci allahu akbar <laughs> kooku foofu la tegoon boromam kon ci wàllu jàmb yàlla daf koo jaraloon ba <laughs> loolu moo tax euh, sëriñ bi ci daam yi mhm. mu naan ko fala tazal fi tuqaa maanaam bi mu koy bi mu koy loola sax danañ ci ñëw bi mu koy ci ñëw ci kanam macha allah pour ma bañ a guddal waaye en mhm. tout cas ci wàllu jikko mhm. ak ci diine. Mhm. kooku mooy Sëñ Daaru Xasan bëgg naa sax ba bala ñuy sóobu ci eh, ñaareelu question bi eh, nga la mën a tuuti parcours am ci wàllu xam-xam ndax sëriñ Daaru ku ku jàngoon la. ku feesoon la ci xam-xam laata muy ñëw ci sëriñ bi. waaw cofal ma ci tuuti rek. incha bu ko defee ñu mën a dugg ci sëriñ bi. bisimilah aywa Sëñ Daaru Xasan ci wàllu parcours. Mhm. ci wàllu xam-xam dafa mhm. jaar rek fi doomi soxna yëpp di jaar. mooy comme ni ma la ko waxee maanaam ci baytu këru këru xam-xam la la ci la juddoo. baytu la judd. këru ngor la judd mhm. moo tax bi mu ñëwee mhm. yoon wi ñu jaarale ay nawleem rek lañ ko jaarale dëgg la mooy rakkam mhm. rakki waajuram moom moo ko dalal jàng muy Serigne jaay Aram Samb kon loolu lan lay tegtale mooy famille woon bu autonome boo xam ne amoon nañ daara seen kër ca jamono jooja ndeysaan ca jamono jooja mooy ca ci njare seer fi mu fi mu ganee jamono foofu la tàmbalee jàng alxuraan bi tàmbalee jàng alxuraan foofu ba am njàngam sori ca la fa jóge nag ñu génnee ko yóbbu ko ci beneen dëkk bu jege foofu ñu ko tuddee ngay saa yoro mhm. ku ñuy wax si sëñ ma yoro gay moom moo ko yoroon foofu mhm. jàngal ko fa ba mokkal alquran mhm. ba bindu ko fa waaye jàngal ko fa it ay téere yu bëree bari ci wàllu xam-xam rawatina ulumul ulumul aala maanaam ak ak ak ulum fiqhiya yi yu mel noonu fa ko tàmbalee jàng euh, ba suñ borom dogal xam naa lam fa am néew na bari na waaye daal marum xam-xamam yokk moo tax damay faral di wax ne sëñ Daaru Xasan hmm. daa bokk ci ñi xam ne dañ doon wër baax ba dajeek sëriñ bi dëgg la lu baax lañ doon wër hmm. nekkuñ koo xam ne dañoo yàqoo fële ñu for leen defar hmm. mais dañoo dañoo baax jóg di wër lu baax muy xam-xam ba dajeek sëriñ bi sëñ bi gën nag sëñ bi gën ñu ñu ñu ñu ñu ànd ak moom sëñ ah. léegi bi ñu jógee foofu nag ci la dem ci ci la dem ci euh, Ndar Saint-Louis ci nijaayam jooju ma naan la moo ko jamoon we wi ne ndax yaa ngi koy yëg mu ne ko waaw mu ne ko na nga jaamoo yàlla ba yëgee ko noonu jamono boobu mu fa nekkee di jàng xam-xam mm-hmm. jamono boobu ci la loola xew woon mm-hmm. nijaayam jooju kilifa la woon ndax bokk na ci ñi nga xam ne boo masaana tàggu sëñ bi na ko damay dem ndar mm-hmm. danaan la boo demee na nga jaar armeelu ceem ndax fa lañ ko denc sëñ Mahmoud kan moom a nga siyaare ko boo ko tàggoo boo ko tàgguwut boo demee ñëw ne ko damaa demoon ndar danaan la ndax jaaroon nga armeelu ceem boo ne ko jaar naa fa mën la dem nga ndar boo ne ko jaaroo ma fa mën la kon yow demoo ndar ndax sëñ Tuubaa xam nga gis nga toujours dama koy wax gis nga raxaabatu sadr mhm. ak bëgg lu baax bëgg ku baax mhm. dañ ko war a roy ci sëriñ bi mhm. ndax sëriñ bi ci ak jotam bi muy jot fu ku baax nekk wër na ko moo ko wax fa jultu bayna al ulama wal awliya fu ku baax fu lu baax nekk wër na ko kon loolu lu ñu war a roy ci moom la ginnaaw bi bi mu demee ba amul jotit fa la toog ku baax ku ñëw mu taral ko la kon foofa la jaar ci sëñ boobu mhm. nga xam ne sëriñ bi ci boobu moom tam seet woon na ko seet woon ko ci armeel yooyu dëgg kon am na sëñ daaru am na ñaar ñoo xam ne mhm. sëriñ bi bi mu wër ku baax seet na leen mhm. muy maamam maam dem ma Njare ak muy nijaay nijaayam jooju ji sëñ Mouhamad Kan nga xam ne moo soxna soxnatu Aminatu Kan mi ko mi koy jur ñoom ñoo ñoo bokk ñoo bokk ndey ak baay ah, bi mu jógee ndar nag ci la jàll Mbàkke Kajoor ndax Mbàkke Kajoor xam ngeen ne moo nekkoon université xam-xam bi ci réew mi mag ci Sénégal waaw ci Sénégal mhm. ndax fépp fu waaye jeexale la muy jàng mhm. boo fa jógee xelam du dem fenn mhm. li ñu tuddee ay nawaadir kutub yu réer yu raar yi foofa rek lañ ko doon jàngee ba mu demee nag mu tàmbali faa jàng xam-xam aruut jàng fa ba jàng fa lu bare bare ba ni sëriñ bi wootee wootee woote bi mu ngoog kon foofa sax laa bëggoon ñu ñu ñu terminer fa euh, ndax euh, foofa la xamante ak sëriñ bi foofa itam la jaayante ak sëriñ bi waaye danga wax lu am solo ci wàllu ko ci wàllu parcours am li ma jubloon ci laaj bu mujj bi mooy ñu xam ne mag ñi nga xam ne ñoo doon ñëw ci ku tedd ki dañoo jàng ba dañu réer soog a ñëw ci sëriñ bi dañoo soobu jaamu yàlla ba seeni xol set ñu soog a ñëw ci sëriñ bi dañoo jublu yàlla jàng ko ba xam ko soog a ñëw ci sëriñ bi pour ñu xam ne sëriñ bi ñi ko toppoon kenn ku ci nekk mhm. doyoon na sëkk mu àtte jamono waaye nangu dogalu bu yàlla mhm. xam li ci sëriñ Touba mhm. jox ko seen bopp wékk ci moom ngir cër ba ñu soxla ci yàlla mu mën a jaare ci moom loolu moo tax ñu yaakaar Serigne Touba topp ci Serigne Touba ci suba rek maa ngi koy wax bi ñuy waxtaanee euh, Serigne Mor Kayre ma ne euh, topp Serigne Touba nangul sëriñ bi mhm. dafa bokk ci ponki gëm yi ma ne leen ab jaahil waxu ko mhm. ndax yéen boroom xam-xam yi bi ngeen di jàngalee ponki gëm ba ngeen gëm yàlla gëm yonente yi gëm malaayika yi gëm bispenc ci gëm téere yi gëm dogal bi Serigne Touba dogalub yàlla la <laughs> loolu la yàlla dogal ñoom nag nangub dogal moo leen indi ci sëriñ Touba ñu ànd ak bi ba am lu baax Euh, ma bëgg nag ñu dugg ci aje ñool waaw dama dama am lu ma lay kii foofu rek mhm. xam nga dafa am Sëriñ Tuubaa lu mu wax mhm. baana li kulli man lahu wilaaya mhm. kaw nii li xaaliqil baraaya aaya aaya képp koo xam ne am nga ci sa borom lu toll ne fépp suuf xam nga ne man kiimtaanu suñ borom la mu kon jàppal ne Sëriñ Tuubaa ñu ko toppoon ay nit lañ am ay cër ci seen borom kon bu dee sens contraire bi lu ñu tuddee mafhumul muxaalafa bi mooy ca jamono yooyu képp ku déggalul sëriñ bi xam nga nag waxuñ jébbalu ak an ak ak nangul sëriñ bi mm-hmm. ci jëflante bokkut mm-hmm. bokkut ndax boo boo gisee mu naan chaqaa u man lam yuhibbuni ala wajalin mm-hmm. yu mel noonu mooy am na ñu ñu ñu fi nekkoon ñu nekk borom ay cër waaye chaqaa u man lam yahwani xat kotiba fii la hayka la si yu fii di kutuba jayit xam nga ñooñu ay nit lañ yoo xam ne ay boroomi cër yi diine lañ woon ca jamono jooju waaye tëru fu ñu toll di weer di feeñal mbañeel guñ bañ sëriñ bi la te ku fi am nga cër bu la suñu borom jagleel nga war koo jàllali ci sa njaboot ci sa njaboot loolu moo doon sa mission mooy nag sa mission dàqonti wut ak dara sopp coofeel gi nga am ci xaadim rasul xaadim rasul léegi nag moo tax kon mhm. li ñuy dégg foofu mooy mhm. mbooleem ñi waroon sëñ bi mhm. ay boroomi cër lañu woon dëgg la ña nga xam ne si ne sax dañoo am ay dañoo beru fenn di jaamu yàlla ba àgg ci seen borom suñu borom da leen xamal na leen jëmma ngee joo xam ne kat mooy borom jamono pour ngeen tekk fii dara faaw ngeen jaar ci moom ndeysaan moo tax dañ dañoo dem ña cay mën a jébbalu dañoo jébbalu ña cay maslaa ak moom dañoo maslaa ak moom ba noonu la noonu la yëf yi mujj kon pour dëggal li nga wax nii rek macha allah ci ne muy lu am solo muy lu am solo euh, dëgg la sax loolu moo ñuy dugal ci ñaareelu euh, laaj bi euh, mu di diggante sëriñ Darou Assane Ndiaye ak sëriñ bi loola nag diggante yu bëri la mais diggante bi ma ci njëkk a soxla mooy jaayante gi kañ la jaayanteeg sëriñ bi waaye ba muy jaayanteeg sëriñ bi lan la ko wax ak lu ko indi ci sëriñ bi ndax yaa ngi junj léegi Mbàkke Kajoor fa la nekkoon ku tedd ki itam fa la nekkoon bokkoon na ci ñi doon jàppale sëriñ Mor Anta Sali ci daara ji am na sax téere yoo xam ne sëriñ bi jot na ko faa bind lu mel ni euh, mu layinu sudóor ak yu ni demee euh, euh, sëriñ bi mawaahibul xuddoos sëñ Mor Anta Sali jot na koo jàngal sax lenn ci ak njabootam mm-hmm. sëriñ Daaru Assane Ndiaye xamante fa ak sëriñ bi mm-hmm. lan moo tax mm-hmm. sëriñ bi doonoon seen mbokkum daara maanaam ñu bokkoon doon yëngu ci daara ji sëriñ bi xëy xëy woote woote bi yoonu murit mm-hmm. ñu topp ko lan lañ xamoon ci sëriñ bi ba tax ñu topp ko waaye ba ñu jaayantee lan lañ ko wax mm-hmm. ba ñu noppee lu ñu def macha allah jërëjëf question bi amatina solo mm-hmm. euh, ni ko waxee rek sëriñ daaru xasan xam-xam moo ko yóbbu Mbàkke Kajoor demee ci daara ji mu fekk fa sëriñ bu mag bi sëriñ bu mag bi yàlla dogalit gis nga suñ borom bu la tànnee ci aw xeet foo foo a jaar dalay teg ci kaw. dëgg la suñ borom dafa doogal defoon sëriñ bu mag bi mu nekk koo xam ne. Mhm. même bi muy jàngalandoo ak Mamor Anta Sali ci biir daara ji donga yi. Mhm. dañoo gën a sawar ci dem sëñ bi jàngal leen que Mamor jàngal leen. dëgg la loolu moo tax bi bi fi Mamor Anta Sali jógee. Mhm. moom moo toog continué daara ja donte ne sax nag Mamor Jaara ko magoon. dëgg la waaye boobu Mamor Jaara ma ngi ci sëñ bu soobee Mamor Jaara ma ngi ci moom moo toog yor daara ja. dëgg la continué jàngale ma. ndeysaan sëñ Jaaro Xasan bokk ci ña toog it continué di jàng. ba suñ borom dikk ak mission boobu mhm. mission bi ko mooy bi mu naan ko fasda bi maa tuumar wa arid anil mushrikin wa arid mhm. sant nga di ko nga nga nëbb ko ci sa xol génne ko nag mhm. fasda bi maa tuumar ci la sëriñ bi génne àjjuma jooju woote wax waxam ji ni ko sëñ Mahamad Lamine Diop Dagana génn yor yatam woowu sukkandiku ci def discours am ba ndeysaan ba ñi nga xam ne ñoom ñoo jot a ñoo jot a jébbalu ca bis boobu wax nañu ñett ñoo jot a jébbalu ndeysaan waaye sëñ Daaru Xasan woote ba fa ko fekk wax ja ko fekk waaye jébalul ca sansa lu waral loolu nit booba moom ci ci ci ci ginnaaw mi woon ci aw yoon hmm. te yoon wi mu nekkoon yoon wu leer la wax hmm. mi ngi woon ci ak jaamu yàlla mi woon ci lu baax balaa mooy bàyyi ci li mu nekk hmm. di dem ci leneen luñ ko woo faaw danoo ko listixaar moo tax mu fanaan uh-huh. ba mu yewoo nag ci la wax ada ali xamarun layla dujud naati fal xumdu duuna mathirin min min raxunaati allahu akbar mooy leer bi dafa mel na daal damaa nekkoon ci ak lëndëm mhm. waaye dafa am leer gu feq leeru gu weer mhm. moo feq ci guddi gu lëndëm kurus mhm. fekk ma nag man ma war a nekk ci tukki dama am fu ma jëm mooy daa jëm ci boroomam dox ba guddi jot mu lëndëm kiris mu nar a toog far aw leer weer wu leer feq mu ne toog toog di xaar ay bët set ak yooyu. jërëtu ko ci ak dof la. ruuna la maanaam ak ndof la. Hmm. kon day jóg dox ci guddi googu. ndax leer ga muy soxla ci bëccëg ga. leer ga am na ko ci guddi gi am na ci guddi gi. te fa mu jëm daa gudd daa gudd lool. ndeysaan. maanaam bu buñ la ko buñ ko lemalul rek. Hmm. li li sëñ Tuubaa di wax naan moom dañ ko dañ ko taxañal yoon. Hmm. tawaytu tariqal xaw mi waxtaan ci daax yi waaw moom. bigaay bigaay yajiduni inda malikin muqtadir kullu waliyin lil jinaani yabtadir mhm. mooy moom ci jëmi boppam mhm. moom bi mu dépend bi mu dépendaroo ak gars yi mhm. ñoo départandoo waaye ñoom ñëpp bañ demee dañu ko fekk ci seen borom tax lan suñu borom da koo yoon wi moom nag gars yi nag jaar ci yoon wu normal yi ci yoon lañ jaar de waaye fa ko fekk ndax suñu borom daf ko moom suñ jaar waxtan mu wax ne guddi googu nga xam ne si na ci la def li saxaar bi ba xam ne lii sëriñ bi di woote dëgg la hmm. ca samedi ba ba mu xëyee ca la jébbalu moom moo nekk ajjuma la woote ajjuma la woote hmm. samedi ba mu xëyee la jébbalu hmm. ci gëstu yi moo nekk am na ñu ne juróomeel am ñu ne juróom benneel li gën a siiw nag mooy juróom benn juróom benneel donte ne nag comité scientifique bi ñu ngi ciy gëstu ngir jéem a wéral wérlu loolu waxam waaye ñaari ñi daal gënnu leen moo tax sëñ Basiiru bi mu koy bi muy wax ci sëñ sëñ sëñ Daaru Xasan dafa wax ne bokk na ci ñi njëkk topp sëriñ bi mhm. noonu la ko noonu la ko rek ñi njëkk a topp sëriñ bi mhm. Mhm. Euh, comme li ma la wax sëñ bi nag ginnaaw moom sëñ bi daaru dafa nekkoon ku baax di wër lu baax bu gisee sëñ sëriñ bi li mu nekk nekk lu gën dafay daal di jóg topp ko nag comme ci yoonu charia la nekkoon sëriñ bi woote xaqiqa mu sóobu nag ci yoonu xaqiqa daal di boole ñaar yi gis nga ne man waxee ci commencement bi ne mësta masla ci lu ak jaamu yàlla kazalik diggam ak sëriñ bi mos cee maslaa daf ko koo dund maanaam daf daan fanaan daf daan yandu dem ca tool ya mhm. yendoo liggéey mhm. ba ngoon bu ñëwee ci kër gi gars yi war a wàcc dem dallu ji moom mu daal jël ab sijaadaam bi mu nekk Touba ab sijaadaam lay jël dem ca armeel Touba yi fee ñu ko denc foofu la daan fanaan di fanaanee jaamu yàlla da daan yendoo liggéey a gars yi bu guddee mu dem fanaane foofu fanaanee jaamu yàlla sëñ Omar Diop moom moo ko nettali xanaa loolu mooy tata jaafa junuubum hanin madaaji yad'uuna rabbahum xawfan wa tamaan wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun loolu sax dama ciy ñëw ci benn ki mhm. mooy Sëriñ Bay Faalo mi nga mhm. xam ne si ne moom moo nekkoon ñaareelu xalifaam mooy ñetteel bi ñetteel bi mhm. ci ci ay doomam yu mag ñaareelu xalifaam Sëriñ Bay Faalo dafa mas nettali doomam ji ñuy wax sëñ seex Mariam ne ko ne bàyyi de daana wax ne bàyyi bàyyi de daana wax ne gaa baax ña seen seenum ngont tata jaafa junubuhum la woon tatajaafaa junubuhum anil madaaji' aaya bi nga indi mooma delloo ci loolu dëgg la ndeysaan waaye nee na seenum xëy wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun la woon maanaam tatajaafaa mhm. jun mooy seenum ngont mhm. dañ daan fanaane di jaamu yàlla mhm. lal yi daaw ñu ci tëdd déedéet dañ daan dem toog ci der yi comme niñ ko waxee ne moom noonu la daan def wax nañ ne ci nettali yi daana daane naafila téeméeri kaamil téeméeri téeméeri rakan kaamil alxuraan daana ko def téeméeri téeméeri rakan daana ko def ci benn ci benn ci benn guddi euh, yëmut ci loolu waaye wa mi maaro sax ñu soon maanaam li am mu koy bokk ak jaam ñi koy dundale ci yoonu yàlla di ko dundale ci yoonu yàlla moo tax dégg naa sëñ Bay Fallou daan wax ne ñun bu fekkente ne yaafuus nañ ba tatajaafaa junuubuhum anil madaaji' mënuñu ko it wa mi maaro sax na ñu soxoon yomb na nañ koy def mooy kon nañu nañ li am nañ koy bokk nañ koy nañ koy bokk ak nit ñi te loola jaamu yàlla gënu koo kawe ci kaw suuf gënu koo kawe mhm. wa ammaa maa yunfa'u naas fa yamkusu fil ardi fa maanaam bokk na ci jaam yàlla yi gën a mag mhm. mooy li ngay dépensé ci nit ñi ak ak jariñ gi ngay jariñ gi ngay gi ngay jëriñ nit ñi ndeysaan euh, yëmul ci loolu waaye diggam ak sëriñ bi mhm. ci liggéeyal ko sonnal ko surtout xam nga koo xam ne wax nañ ne nii la daan jaamoo yàlla fii la tegoon diine kooku bon nangoo xëy suba ak ngoon mu di ko liggéeyal sëriñ bi hmm. di dem ca toolee di liggéey waaye nag sëriñ bi sasaatoon ko yeneen yeneen liggéey hmm. mooy ci diggam ak boroomam hmm. mu doo jox ko ay dog yoo xam ne daf ko ciy def di ko ñaanal ndax lan sëriñ bi xamoon na ci moom ak sell xamoon na ci moom ak baax doyloo woon na ko maanaam maanaam maanaam euh, nawloo woon na ko moo tax lu bari ba ci ba ci màggal gi màggal gii bi ko sëriñ bi i'tikaaf bi sëriñ bi doon def fii nii ci jàkkee daar xudóos ji ci jàkkee daaru xudóos ji mm-hmm. ah, nga xam jamono yooyu dé dégg naa maanaam ci ci ci ci niñ ko nettalee mm-hmm. euh, xalwa googu sëñ bi doon def mm-hmm. daraan def bu duggee weer génn sëñ daaru xasan dugg weer dëgg nga xam ne diir bi sëñ daaru xasan di nekk ci xalwa gi sëñ daar sëñ sëriñ bu mag bi day ñëw ba ci bu waxtu julli jotee sëñ mag bi day ñëw ba ci permis mu yëglu li xaam sëñ daaru xasan jiite sëñ Tuubaa bu nekkee ci biir xalwa gi bu waxtu wa jotee sëñ daaru xasan day ñëw daal di yëglu li xam sëñ bi jiite lool loo ciy déggee mooy jullik mbooloo fonk ko ko sëriñ bi fonkoon mm-hmm. nga xam ne non seulement moom ci boppam même bu nekkee ci xalwa sax du tey muy julli jullik mbooloo ndax daana am ku mel ne sëñ Jaaro Xasan muy ñëw di muy ànd ak moom julli gi mm-hmm. sëñ Jaaro Xasan wala keneen mm-hmm. en tout cas man comme moom laa maîtriser moom laa xam donc li ma ci xam moom laa yem waaye moom sëriñ bi daana def loolu waaye waaye sëriñ bi it fonkum jullik mbooloo tax na it comme moom moo koy liggéeyloo bëggul muy rate jullik mbooloo gi ak yool ba mhm. moo tax moom day ñëw ànd moom julli gi mhm. ba wax nañ ne ci yoon wu mujj woo yoon wu sëñ Daaru Xasan mujj mujj dugg mhm. ba mu génnee ci la koy junj wax ko yoon week lim ci gis ak dëkk beeg fi ko gis ak taxawaayu jumaa jeeg yu bëree bëri junjoon na ko ci jamono yooyu ndeysaan waaw kon lool li muy war lek li wax toujours rek sànq li ñuy waxtaane man ak yow ci ñi nga xam ne si dañoo dañoo dañoo dañoo dañoo jàpp dañoo dañoo dañoo am fuñ féetu woon sëriñ bi ci ay jamonoom sëñ jaaxasoon bokk ci ñooñu ak ñeneen nag mhm. maanaam man kii la ñuy waxtaane rek waaye mhm. am na ñeneen ñoo xam ne si ne fañ woon sëriñ bi mhm. sëriñ bi xam na ko waaye it nangaloon na leen nangaloon na ko kon ci côté boobu mu féete woon ko mooy ci wàllu jaam yàlla ba wax nañ ne sax daana ko jox ay lim limu maanaam trente mille ayati kursi yi bi daana ko wirduloo ci benn fan la daan def ci ñaari fan ci ñetti fan en tout cas waaye daana ko jox lim boobu mu nekk lim boo ne na Euh, daana ko sant mu di ko mu di ko mu di ko defal mhm. kon kum doyloo woon la ginnaaw ginnaaw boo xamee si ne mhm. euh, ñëw na ba mhm. ànd ak moom ba mu defar ko dem na ba defar ko ba mu doy ko sëkk ba nga xam ne si ne sax loolu moo tax mu euh, bi mu ko yabalee fële ca ca njàmbur mu dellu ci ay mbokkam mu seexal ko boole ko mbooloo yemul ci loolu waaye dem na ba képp ku jógee njaa njàmbur ñëw ci moom danaan ko xanaa romboo moo Assane njàmbur ñëw fi xanaa déggoo ko mhm. boo ne ko ah kay mën la dellu mhm. boo demee nga yem ci moom doyloo gi mu ko doyloo dafa dem ba ay mbokki boppam mhm. am na ay mbokk yoo xam ne si ne lañ sant waaye sëriñ bi moom da leen a jëloon jox leen sëñ Jaaro Xasan ci këram lañ yaroo dëgg la donc donc loolu bokk na ci yëmu ci waaye na jël jël doomam jox ko sono Fatja mi nga xam ne soonu Fatja bi mu demee ci sëñ Afe di ko laaj na ko man daa am ku ñu muy bëgg a jox ku ñuy wax sëñ Jaaro Xasan ma di laaj mooy kan suñ daan wax sañ sañ aafe dana ko kooku day li ma lay wax ci moom mooy ku dut sa baay bee gënu ko est loolu laa lay wax ci moom ndeysaan gënu ko daq koo jaamu yàlla mu mat sëkk loolu la ko wax mu doy loo loola ba mu demee mhm. daal di euh, nangu dogal boobu sëñ bi jëloon mhm. ba suñ borom dogal na fa la nekk ba ni sëriñ Daaru Xasan génne àddina mhm. kon ci digganteem ak sëriñ bi mhm. maanaam yu baree bari mën nañ koo tudd waaye mhm. misaal yooyu rek bu ñu ko joxee mhm. ci nangu gi ko nangoon a liggéeyal ci fi mu ko féete woon ci sëñ bi doy doyloo woon ko daan ko defloo yenn dog yi ah ak ci ci ci doyloo woon gi ko doyloo woon ba jël doomam jox ko doyloo gi mu ko doyloo woon ba gis nga njaa njaareem gi njaareem gu mujj ci xam nga daa xawoon a jaxasoo lool dëgg la wallaay waaw li ñaan gone murid ya ndeysaan wallaay <laughs> waaw maanaam sëriñ Daaru Xasan bokkoon na ci ñu doyoon sëñ bi ba jamono yooyu bi nga xam ne dem nañ ba yenn mag ñi seen doole bari na ba muy am ak jaxasoo ci seen biir sax yëngu bi bari yëngu bi bari am ay mhm. jaxasoo ci seen biir mhm. bokk na ci ñi sëriñ sëriñ tubaa doyloo woon ba daal ba daan leen réglé loo yu mel noonu sëñ Jaaro Xasan mhm. moo tax fa ñu wax kër sëñ kër soxna Faat gi nekk gi nekk njaareem kër googu kër sëñ Jaaro Xasan la woon ndeysaan moom moo ko moom moo fa daan dal dëgg la nga xam ne loolu la woon rek bu ma xew-xew masaanaam moom ak mm-hmm. sëñ aafe mm-hmm. la sëñ daan woo mm-hmm. yabal leen ñu dem di lijjanti yu mel noonu macha allah kon diggam ak sëriñ bi rek muy la am solo waaw jërëjëf euh, sëriñ bi euh, yaakaar naa ni bu ma déggee say kàddu mel na ne euh, résumé nga digganteem ak sëriñ bi ba ci bi sëriñ bi di jóge Touba di dem ca Mbacke Bari ca Jolof dafay mel ne kon bi sëriñ bi woote yoonu mu di ci atu 1881 ca Mbacke Kajoor bokk na ci ñu njëkk a wax nga ko léegi juróomeel wala juróom benneel eh, ci ni nga xam ne noonu la ko borom xam-xam yi bindee ànd sëriñ bi itam ñëw Mbàkke Bawal eh, ginnaaw Mbàkke Kajoor waaye àndandoog sëriñ bi itam ca Daaru eh, waaye àndandoog sëriñ bi itam fii ci Touba ci bi sëriñ bi di dem ci géej jóge Touba dem Mbàkke Bari ca Jolof mooy euh, histoire bi nga wax léegi euh, bi sëñ daaru génne gis na yoon wi gis na la cay xew gis na la cay topp ak dëkk bi ba mu waxtaan ci ak sëriñ bi kon yëgoon na loolu euh, juróom-ñaari at ak juróom-ñetti at yu manqué yi sëriñ bi nekkee Gabon moom sëriñ daaru ci lu mu nekkoon ak fu mu nekkoon juróom ñaar at yooyu yëpp sëñ daaru xasan moom mi ngi njàmbur mi ngi njàmbur ndax bi ko sëriñ bi wàccee mhm. daf ko yebal mu dellu ci ay mbokkam ndeysaan fa demee mu nekk ci ay mbokkam mhm. Mm-hmm. defar defarub sëriñ bi fu mu nekk mm-hmm. day feeñ njëlbeen gu metti la nag mm-hmm. la am ndax comme xamuñu ko loolu doo ci yedd kenn nit al insaanu adu maa jahil nit li mu réeree da koy da koy da koy da koy noonoo am noonu la koy def moo tax bi mu ñëwee rek nanguluñ ko waaye terewul nag ñoom it ginnaaw askan wu baax lañ te bëgg lu baax biñ gisee li mu andi xam nañ ne lii lu baax la li dal Sëñ Tuubaa da ko dal Sëñ Tuubaa ay mbokkam yëpp dañ ko topp Mm-hmm. moom it ay mbokkam yëpp dañ ko toog wallaay ndeysaan si jaw xasan ay doomi baayam ay doomi ndayam ay nangam ñoo ñooñu ñoo ko wër ay mm-hmm. mbokkam li ci ëpp ci ay mbokkam la ak ay mm-hmm. dëkkandoom ña nga xamante ne dañoo dëkk ci boori boori boori njàmbur moo tax ci jamonoy sëriñ bi bokkoon bokk na ci ñi ëppale woon ay taalube sëñ daar sëñ sëñ sëñ sëñ Mouhamadou wax na ko wax na ne ci meneen baal xadim sëñ daaron xasan bokkoon na ci ñi nga xam ne ñoom ñu maanaam doonoon na ku bari atbaaul muridin mooy ay ay ay ñu ko topp ñoo xam ne ay murid lañ mm-hmm. kon bi sëñ bi nekkee ci géej gi lépp mm-hmm. sëñ jaaru moom mi ngi toog mm-hmm. njàmbur di di woote woote bi sëriñ bi ndax sëriñ bi maanaam moom kañ kañ la réussir wooteem rek mooy bi nga xamee ne wuur wu njëkk wi di sëñ sëñ Moustapha Lo di wax naan wuur wu njëkk wi defar na leen ba kenn ku ne mu yóbbu la fenn ngay defare samp la ci barab samp la ci barab boobu si bi ñu jëlee sëñ bi yóbbu bu fa nekkoon téeméeri at du tey sëñ bi lim sancoon fi moom day dox tey yëf yi di dox day ndax kenn ku nekk fa nga nekk am sëñ Tuubaa nga te defar na la ba defar goo xam ne mhm. yow ci sa jëmm taxawaay rôle lu mu war a joué fii lu ci ci ci defare lu ci bari mhm. mën nga koo def dëgg la sëñ Jaara Xasan loolu la nekkoon mhm. nekk njàmbur di jaamu yàlla di liggéey bi mu demee ba dëkk bi mu nekkoon mooy njare saar gi nga xam ne fa la jógee woon ñëw ci sëriñ bi ba mu fa delloo foofa xat fekk sëñ bi ñibbi si mu dellu siwaat ci sëriñ bi sàkku ci moom mu jox ko ndigalul mu sanc barab bu gën a bu gën a yaatu mhm. wax nañ ne Mor Madiang Fallo ku ñuy wax sëñ Mor Madiang Fallo mhm. gorob sëñ Daaru Xasan la woon ndax yoroon na doomam mhm. moo mooy way juru sëñ Bay Fallo mi jënd way juru sëñ Bay Fallo mi jënd sànq Mor Madiang Fallo moom moo ko jur sëñ bi ne ko dangay dem nag ca ca Mor Madiang Fallo boo demee la tàmbalee ca peram ma nga tàmbali di tari sortu yaasin yaasin ba naasi foo yam rek nga nga nga nga nga nga wut foofu. nga wut fa kër nga wut fa suuf. suñ borom dogal mu def loolu. ci la mm. sànc dëkkam bu njëkk muy Daaru Salaam. Mm-hmm. foofu sax laa bëggoon ñu dugg fa. mu di ay réalisation ndax ko ci nekk uh, ba nga dikkee ci sëriñ bi. Mm. ba sëriñ bi war a def ci yow lépp mu def ko ba mat. Mm. yow itam sëriñ bi daf laa samp. sëriñ daaru bari lu mu réalisé. ndax uh, sëriñ daaru Assane Ndiaye ji doy na ci sëkk misaal turu sëriñ daaru wi. yaakaar naa ne yaa ngi wax léegi Mor Assane loolu it bëggoon naa sax ñi koy dégg ñu amaale ci ay leeral lan moo waral Mor Assane ah. lu waral Seexu Assane Ndiaye lu waral Serigne Darou Assane Ndiaye te ko tedd ki Xaadim Rasul waxoon ne bëri tur bokk na ci liy tegtale hmm. màggug daraja ci suñu borom subhanahu wa taala euh, ñu bëgg xam ay réalisation moom sëriñ Darou Assane Ndiaye hmm. li nga xam ne jot na koo réaliser jot na koo liggéey ci dëkk yu mu sanc daara yu mu sanc dëkk yu mu gox hmm. euh, ba samp fa ñoo xam ne tey jii la sëriñ bi defoon ci moom moom def na lan la sëriñ daaru jot a réalisé ginnaaw bi ko sëriñ bi defaree ba noppi jërëjëf mhm. sëriñ daaru xasan mhm. bokk na ci mag ñi nga xam ne mhm. dañoo dox doxinu sëriñ bi ci sanc ay dëkk taal ay jàngu mhm. ak ci yar mhm. bokk na ci misaal mi ma la wax rek mooy bi mu bi mu bi mu demee ba dëkk ba xat mhm. njare sayer sëriñ bi yëgu ko li xew léegi nga xam ne man man na maa def lu ne mhm. jënd këru Ndakaaru dëkk fa def toxu nang te sama sëriñ bi ko yëg mhm. ñoom yooyu nekkuñu ci woon di njoor njort di weeye njort yooyu yooyu nekkuñu ci woon <laughs> ñoom lu bant bu ndaw buñ koy yëngal day fekk ñu am ci mhm. ndigalul sëriñ bi ndax lan laa tafaalu shay'an bi xayri idni fal isnu sartun fi xaboli sha'ni loo mën a def ci lu baax te amoo ci ndigal dëgg du la jariñ dara ndax idni day toll ak niyya mooy yéene day toll ak yéene dëgg la te te innamal innamal amalu bi niyaat bi niyaat nit ki kenn ku nekk sa jëf mi ngi toll comme sa comme comme comme sa yéene mm-hmm. ci la sànc nag dëkkam bu njëkk buy daaru salaam comme ci xista boobu ñu ko nettalee mm-hmm. ba mu fa nekkee nag nekk fa waaye gisoo comme ni defarul sëñ bi rek fu mu nekk mm-hmm. maanaam day mel ne taal buñ taal ci kaw montagne li li arab doon wax naan naan naan alam aw montagne moo xam da nga faa taal dëgg la foo toll dañ koy seen tund woowu yëpp màbb nag di ñëw dafa dem ba dëkk ba xat ba dëkk ba xatee am ñeneen ñoo xam ne dañoo dëkk ci wet ga ñu ñëwoon di jébbalu wala ñu ñëw jébbalu sax ba demaat gis ne fii sëñ bi nekk xat na te am nañ suuf su gën a yaatu foo xam ne sëñ mën na faa gën a liggéeyal liggéeyal boroomam gën faa mën a liggéeyal sëriñ bi léegi nag ñu ñëw ci sëriñ bi nag ne ko am nañ fee suuf su yaatukat soo xam ne buñ ci amee boo ci boo bu fekkente ne jubu na la mën ngaa ñëw nga kii ko ci la dem sant nag beneen dëkk bi ñu tuddee Daaru Xadim wax nañ ñu sax wax nañ ñu sax daaru xadi mooy daaru njaay wala daaru daaru xadi moom lañ naan daaru biram boodil daaru biram boodil bokk ak daaru njaay daaru dafa am daaru njaay njàmbur mooy daaru mhm. salaam mhm. daaru njaay njàmbur mhm. mooy daaru salaam mooy dëkk bi njëkk a sanc dëkk ba ca topp mooy daarul xadim moom lañu tuddee daaru biram boodel guñ ko ci dàkkentale ba tax ñu naan ko sëñ daaru sëñ daaru xam naa da daaru yëpp rek daaru yëpp waaw ndax ñaari yëpp xam nga ay daaru lañ xam ñaari yëpp ay daaru lañ <laughs> daaru biram boodel ak daaru gi loolu moo waral sax ba ci suñu suñ koñ bii ñu am fii ci Touba mhm. ñu tudde ko daaru Njaay ndeysaan waaw sëñ daaru xam nga mm. comme ni ñu naan sëñ Touba waaw sëriñu Touba sëriñ ba sanc Touba sëriñ ba sanc daaru sëñ ba sanc Mbàkke dëgg la moo moo indi yooyu yëpp dëgg la mhm. sëriñ sëriñ Touba ci boobu Mor Xasan la ko daan wooye mhm. Mor Xasan wax nañ ne sëñ sëñ sëñ sëñ euh, sëñ Omar Diop mu Mbàkke dafa nekkoon wala réem mas naa ñëw ci moom mas naa ñëw ci moom bay dem mu laaj ko ana Mor Asan laaj ko wëllëreem ni mu demee ak yu mel noonu yëpp ba mu muy dem mu ne ko ballix salaam yi li li jaari li jaarika ladi fi'luhu kasmihi aywa maanaam mm-hmm. na nga na nga na nga na nga ma nuyul ki nga mm-hmm. xam ne jëfam ak aw turam dañoo nduroo te loolu sëñ Tuubaa ko bind sëñ Tuubaa moo ko bind maa ngi ci mm-hmm. xasida ga danañ ci agsi xam naa kon ko kooku moo ko kon Serigne Darou Hassane mm-hmm. Mm-hmm. ginnaaw ba mu nekkee foofa nag mm-hmm. ca Daarul Xadim ba ba mu fa jógee nag ci la ci dëkkam bu mujj ba nga xam ne fa la génne àddina muy Touba Ndiaye wax nañu sëñ Touba moom moo ko jox tur bi ne ko nanga ko tudde Touba Ndiaye ndax Touba Ndiaye ci sama Touba gi la bokk muy Touba Toubaam gii Touba Ndiaye ci sama Touba gi la bokk fa la nekk ñett at la fa def génn àddina moo tax dégg naa amoon na doom joo xam ne da daan wax ne maa ko ragal damaa ragal ñett ndax li li junj ñetti at ya sëñ Daaru Xasan def Touba Ndiaye génn àdduna moom lay moom lay junj naan damaa ragal ñett maanaam sanc fenn def fa ñetti at wàccub liggéey waaw daf ko kii maanaam loolu la jot a sanc ay dëkk mhm. waaye réalité nag ci wàllu ci wàllu fu ci nekk it moom jàng ak jàngale ak yar ak yóbbu nañ ci siraatal mustaqim rek la fa nekkoon moom la fa nekkoon mhm. fépp fu may sanc Daaru Xadim ba mu fay jógee mhm. dafa dafa samp dafa bàyyi ab taawam mooy sëñ Abdou Fatim Mballo mhm. ak ko ñu wax sëñ Abdou Karim ñoom ñaar la fa bàyyi ñu ñu continuer mission boobu mhm. yeneen dëkk yi mu sanc yëpp am na euh, fépp fu mu rek mhm. dana jël nit koo xam ne si ne moom mooy nekk ndax dafa fonkoon jàng njàngum xam-xam sëñ Daan yëpp mës koo yamaleeg dara ko fonkoon ba daan ci soññu njabootam ba njabootam gi nga xam ne si yenn saa yi dañ ñi ko ci doon xaw a kii sax ah, sëñ Modou Gueye bu parcelle xam naa da ko dégg sëñ Modou Gueye parcelle bu baax borom daara yi mhm. yàlla dogal na mu bokk ci njaboot gi mhm. dañuy wax ne dafa ma mas a nettali ne ma sëñ Daaru Xasan dafa am ay njabootam ñu mu woon ci way juram muy sëñ mhm. Maguèye sëñ Maguèye boobu euh, moom moo fi nekkoon koo xam ne moo daan jàngal li ëpp ci njabooti sëñ Daaru Xasan yi xale yi njaboot gi ba mu leen fa yóbboo nag ñuy nangu ñoo toog ñuy daw sëñ Daaru Xasan daa woo sëñ Maguèye na ko ñii xale yi bu fekkente ne seen way jur yi jigéen yii ma yor moo tax nanguwu ñëw toog ci sa kër gi damay yewi si way jur jox leen ngir ñu toog fa jàng kon foofu la tegoon am jàng mhm. wa dëkk bu mas a sanc nag noonu la ko daan sanc comme nag sëñ Ibra Ngoone kooku nit la woon koo xam ne wàllu mhm. xam-xam ak mhm. wàllu jàngale daara ak alxuraan ku ci ràññeeku woon la ci dundam gi yëpp ci la ko jeexal ci la ci la ko jeexale ba moom la daan jël euh, dëkk yu mas a sanc di ko wut fa koo xamante ni moom moo fay nekk di jàngale waaye moom mu yare di yare nag ci ci jaamu yàlla ak ci liggéey Mhm. comme comme comme nañ ko nañ ko macha allah jërëjëf euh, euh, muy lu am solo euh, sëñ Modou doon loo xam ne daanaka doyoon na sëkk rek waxtaan wi ay réalisation li mu liggéey ci xam-xam li mu liggéey ci wàllu diine waaye yaatal itam dëkkuwaay yi te it loolu dafay lu am solo. bokk na ci bëgg sam réew muy lépp luy soqali sam réew ci wàllu saahir rek la ñuy wax sax euh, luy yaatal sam réew nga nekk ca mais rawatina nag ngay fexe itam ba ña fay dëkk euh, seeni xol jublu suñu borom mooy nga yar leen jàngal leen teg leen ci siraata mustaqiim euh, sànq bi ngay wax léegi ci innamal ahmalu binniyaati jooju ma dégg ci sëriñ Daaru Asan Jaay ci wax ja ko tedd ka di sëriñ Tuubaa waxoon naan buur buy fay yéene day jafewul a jaamu waaye buur nag du fay yéene te ak man des fa sëriñ Daaru Asan Jaay ko déggoon loolu la ku loolu la da daan jëf waaye daan ga ak njabootam ci ñuy jëf daawul nangu koy koy yolomal sariha wala lépp lu jëm ci wàllu diine te loolu li ñu ci wax doy na sëkk misaal ñu bëgg itam ba tey des ci diggante ma ko di ki di xaadim rasul maanaam seen wàllu jëflante eh, ci wàllu bind sëriñ Darou Assane Ndiaye am na lu mu bind ci sëriñ bi waaye sëriñ bi it am na lu mu bind ci sëriñ Darou Assane Ndiaye foofu laa bëgg nga ñëwal ma fa. da ngaa ñëw lu am solo. Mhm. ndax day mel ne loo ko mën a waxal di ko dégg. Mhm. wax la ma nga xam ne moo ko bind da koo gën a wér. dafa gën a am solo kon wax wax wax sa njaar waxtaan. Mhm. wax li mu bind ci sëriñ bi loolu daa doy sëkk. Mhm. wax naa ci njëlbeenu xasida gi xasi ci xasida gum bind tuddee woon ko tàmbalee ko adwa ali xamarun layla dujun naati fal qumdu duuna masinin min ramu naati ndeysaan te guddi googu nga xam ne si ne ci la defee listixaaram boobu pour mën a pour gisanteeg sëriñ bi comme dafa nekkoon ku am xam-xam ci wàllu balaaxa xasida gi sax bi may nekk Fastef mhm. moom laa defoon sama mémoire bi may bi may bi may génn macha allah nga xam ne maa ngi ko tuddee woon maa ngi ko tuddee woon Serigne Darou Hassan wa qasidatuhu ada ada ali xamarun dirasa balaaxiya noonu laa ko defoon noonu laa ko tuddee woon wàllu balaaxa wàllu balaaxa mhm. da ngay xool li waral loolu mooy dangay xool ci njëlbeenu xasida gi daf daf ciy def iltifaat mhm. mooy day mel ne day xar day day waxanteeg nit alors que boppam lay waxal ariqte yaa saaxi mhm. mooy yaa ngi fanaanee guddi yaa ngi mhm. fanaanee xoole xam nga mhm. ne woon naal daal istixaar dëgg la ariqta yaa saaxi min aji tazakuri man huwa tazakuruhu aslul busaarati yaa ngi tëdd guddi di fàttaliku koo xam ne nee na ko fàttaliku ko moom mooy moom mooy cosaani mbégte yi mbégte mi gën a neex moom mooy fàttaliku Sëriñ Tuuba waxër radita bi qaain xayra saaxatihi wa in radita fa ansim min musibaati ndax da ngay nangu nekk ci beneen pak nekk ci beneen pàkk mooy li nga nekkoon laata sëñ bi di woote ndax da ngay da ngay préféré def ci loolu mhm. wala ndax da ngay dem ci la mu woote mu ne na nga jàpp ne nag musiba mi gën a mag mooy nga def ci li nga nekkoon askay fanci min musibat mhm. mooy nekk ci li nga nekkoon te fekk sëriñ bi woote na la mu woote ba pare fekk sëriñ bi woote na la mu woote li gën a doon dalum xem daal mooy fekk la mu woote nga dem ca waaye la gën a wóore di mooy nekk ci la nga nekkoon ci la nga nekkoon moo tax ma ne ko mu mu digal mhm. jëmmam boppam zuril xabiba alladi na nga ziyaare soppe bi nga xam ne yaquudu zairahu day wommat ki ko ziyaare ila tariqi najaati wal karamaati mooy da koy wommat mm-hmm. jëme ko ci yoonu mucc mm-hmm. waaye yoonu ay ay ay ay mm-hmm. mu mel ne dañ ne ko kooku mooy kan mu ne huwa alladi kaana lil anaami marhamatan mooy ki nga xam ne si ne dafa mës a yërëm jaam ñi Mhm. moom léppam yërmande la da ngay dégg waxkat yi sax dañ naan Sëñ Tuubaa léppam yërmande la daa mhm. nafan bi laa darari la da ngay wax lu mel mhm. na bu yàgg ne hullati kaana lil anaami marhamatan min rabbihim fii dunaahum wal qiyaamaati borom la ju jógee ci boromam yërmande addina la waaye yërmande alaxira la fii dunaahum wal qiyaamaati kooku nag mooy da al bakkiyu mooy kañuy kañuy askanale Mbàkke te loolu ci njëlbeen ga la ci njëlbeen ga la al mbàkki yu borom da koo gënal mooy ñoom baax nañ mhm. ñu nangu ne dañoo baax waaye dañoo gis ku leen gën ñu nangu ne kii dañoo gën dëgg la faddalahu ala kathirin mhm. mi man haazul masiyaat ndeysaan mboo ñu bari ci ñi nga xam ne dañoo làq ay yiw mhm. Sëriñ Tuubaa moom moom moo leen gën ndeysaan moo tax ñu bàyyi lépp mu bàyyi lépp dem dem dem dugg ci dugg ci moom mu mel ne dañ ne wax ñu jikkoy kooku nag jikkoy kooku mooy kan mu ne leen xaysun xayisun mooy ab taw la taw mm-hmm. boo xam ne taw taw boo xam ne antoog lor la mm-hmm. karimun ku tedd la mm-hmm. naqiyun ku sel la koo xam ne si ne raxut raxut raxut raxut ab safan naasixun kuy laa biire aw nitam la kuy laa biire jullit ñi la warixun ku sàmmonte la it digganteem mag boromam ak digganteem ak jaam ñi nafun njariñ la dañuy wax ne siixa mubaalaxa bi gën a mat mooy masdar dëgg la bu mën a laa yowoon njariñ nga njariñ nga dëgg la bokku ma bokkut ak man la yow da ngay jariñe da ngay jariñe yow njariñ nga njariñ lee ëpp doole njariñe ëpp doole waaw di jariñe yow hmm. njariñ nga mooy kon ndax njariñ comme laal nga jariñu ku ko jariñ ko laal jariñu dana jariñ sax te du yëg te du yëg jërë bien moo tax mu ne sëñ Tuubaa njariñ nga ndeysaan a moo tax awoon euh, nafoon nafuun hmm. njariñ ga waaye ab jariñee kon nga it hmm. da ngay njariñ nga waaye da ngay jariñee ma faatee lu ko yóbbaate ku taqoo ak yow mhm. dana dem ba xam xaybu ndeysaan sëñ Daaru Xasan mujj na mu xam xaybu mhm. wa indahu mafatihul xaybi laa yaxlamuha laa yaxlamuhu illa allah mhm. jooju al jooju alquran di wax sëriñ Daaru Xasan nee na sëñ Tuubaa da koo yor mafatihul xaybi da koo yor te da koy joxe dëgg la moo tax demoon na ba ne sëñ Daaru Xasan yow daraja ja daraja ja yonent yàlla Suleymaan amoon ba mën a xam njanaaw yi lu ñuy wax dara jooju da nga ko am bu loolu moo tax te xam nga ku mel ne yonte Suleymaan alxuraan nee na mhm. daa mas di ba mhm. bam naan udxulu masaakinakum mhm. laa yaxtimanakum Suleymaan wa junuuduhum wa junuuduhum laa yash'uruun ba mu ko wax xorondoom yaa yoon namlu kon te waral mooy xollim naa mantiqa tayr wa otina min kulli cheyin walaha harsun azim walaha harsun azim mm-hmm. xam ñi njanaaw yi di wax mm-hmm. moom moo ko waxoon mm-hmm. ànd gi ma ànd ak sëñ xamal na ko da nga dem ba da nga xam njanaaw yi li muy wax wax nañu daa mas toog di rek waxtu timis gis ñaari petax benn petax ne moroom ji dañoo sab rek mu ne leen xam ngeen lu petax yooyu waxa ndeysaan ñu ne ko déedéet mu leen kenn ki de daa wax moroom ji ne ko fu ñuy fanaan mhm. mu ne ko ci garabu Mor Xasan gële la ñuy fanaan ndeysaan nga xam ne ñoom sax dëgg la maanaam tur bi ko suñu tubaab di woowe lañ ko doon woowe maanaam kon mhm. mu ne ko ma faatinul ko yóbbaat nga maanaam sëñ tubaa nit la koo xam ne caabi mhm. xay bi doo ko yor te di ko joxe loolu nag lu yom gis nga lii alxuraan ne woon képp kuy jaamu yàlla suñ borom da lay jox ilmu laduni loolu mooy mooy li nekk mooy da ngay dem ba da ngay yëg da ngay gis loo xam ne si ne ñëwgul mm-hmm. wa allamnaahu min ladunaa ilman min ladunaa mooy ilmun ilmun ilmun laduni ndeysaan kon waaye yëmul ci loolu it mu ne xawsun mm-hmm. ab xettali waa kon la mm-hmm. kafiilun ab dimbali waa kon la it mujiirun koo xam ne si ne ab dëkkaale waa kon la maanaam ku mën a dëkkoo ñëpp la zaahidun ku dëddu àddina la sanadun aw wéeruwaay la moom Sëriñ Tuubaa moom sëriñ bi ah ndeysaan kanzul masaakin moo nekkoon trésoru miskin yi ndeysaan mooy fu waaye jógee mhm. sëñ sëñ sëñ wax na ko sax sëñ sëñ Mouhamed Lamine Diop Dagana mhm. ci téere yi mhm. nee na sëñ Tuubaa bi maanaam ñi daan ñëw ci moom ñenn ñi dañ daan wut si yàlla ñenn ñi di wut si lu ñu yóbbaale moo tax mënu kanzul masaakin yi yow nga xam ne si ne koo xam ne si miskin li ñu daan wut si ndeysaan dañ ko daan fekk si dañ ko daan fekk ci yow man naaxul maraamaati lépp lu nit mas a sàkk ko ci yow it macha allah da nga ko koy ndeysaan da nga koy da nga koy da xam naa da nga may junjal rek ci lenn ci bayit yu gàtt yoo xam ne sëriñ bi wax na ko ci sëñ daaru ndax euh, junj nañ ma sànq ci ginnaaw ne ma juróomi minute ci des ah, euh, te yaakaar naa desoon na ponk yu bëri yoo xam ne waroon nañ ko waxtaani parce que sëriñ daaru Assane Ndiaye day géej dëgg la dëgg euh, junjal ma tuuti rek ci lii sëriñ bi bind ci moom waaw sëriñ bi ci de ci deux minutes rek bu ko defee ñu mën koo tàggoo mhm. Mhm. bokk ci bind ci ñoom mhm. ndax day loolu day mel ne benn signature la boo xam ne mhm. dafay des ci diiru dundug Sëñ Daaru Xasan ak bi mu génn diiru diirug àdduna mhm. ba fii ak njabootu Sëñ Daaru Xasan ñi nekk ci àdduna mhm. loola day des sëriñ bi daf ko wax na ko jazaaka rabbuka fi daarayni yaa xasan xayran bi mi alladi yi najil xasan da ko wax ne ko ginnaaw ba mu ko jaamoo yàlla nag liggéey li mu ko liggéeyal def li mu ko def lépp ba ñëw ci moom naan ko ataytukal yow ma dayfan mhm. gan laa ñëw ci yow lenn mooma indi mooy atobana rida rabbil rabbil baraay la si ñuxlil maqaamaati damaa ñëw ci yow waaye ngërëmul yàlla képp laay sàkku mhm. lenn laay sàkku nga berlee ko it te mooy nga berleel ma ngërëmal suñu borom xiraa yaa siqati ridwanuhu abadan mhm. ngërëmal suñu borom lu sax bi xayri suxtin loo xam ne si ne suñ borom du ma mereeti ginnaaw bi wa taw bii xin suñ borom du ma yeddati wa aafaati te du ma amati benn gàkk moo tax sëñ bi ba koy yokk ba mu koy tontu mu ne ko jasaaka rabbuka yàlla na la suñ borom fay ndax sëñ bi sëñ daara sam bi mu jeex xasida ko da koy jeexal ay jasaaka jasaaka yu bari moo tax daa mel ne daa sëñ Tuubaa daa def benn réplique rek delloo ko jasaaka yooyu <laughs> jasaaka rabbuka fi daaren yaa xasanu mm-hmm. xayran bi jaahil la si min najina xasan mm-hmm. mooy suñ borom ne ko mm-hmm. yow sëñ daaru yàlla na la suñ borom fay mm-hmm. yàlla na la suñ borom fay aw yiw mm-hmm. ci ci darajay yonente bi alayhi salaatu wasalaam mi nga xam ne si ne ay sëtam ku tudd xasan da cee amoon mm-hmm. di ko di ko maanaam di ko indil ko xasan jooja yonente yàlla euh, sëtub Seydina Xasan Seydina Xasan doomi Ali doomi Ali xataa taxuusa alladi tarju wa taamuluhu mimman lahu qad badal kitmaan wal alanu maanaam maa ngi ñaan suñ borom fay la fay goo xam ne danga dem ba fay googu da nga ci làq da nga ci làq lépp loo yaakaar ba tax mu ñëw ci yow ba tax nga ñëw li tax nga ñëw ci man pay ga yàlla na la ko suñ borom fay xataa taxawta la si tarjo mooy li nga yaakaar wata amaluhu li ngay mébét li ngay mébét ci kan mi man laxoo xat badal kit maan wala alana li nga yaakaar ci sa ci sa borom ba tax nga ñëw ci man hmm. loolu yàlla na ko fekk ci man macha allah li nga bëgg yàlla na la ko su borom defal ci la ko wax nag naan ko faalam bi anniya raadin hmm. na nga xam ne gërëm naa la hmm. raadin anka mutaliban an jaaka alfawz min mawlaaka wal mikanu an jaaka alfawz mooy ak texe <laughs> mhm. waaw ma gërëm naa la mhm. te maa ngi lay ñaanal suñu borom defal la ak texe mhm. maa ngi lay ñaanal suñu borom defal la ay daraja mais wal mikanu mooy ay daraja yu kawe macha allah mikan jama ma macha allah daan ko falaa tadal fi tuqaa bul dañ ci ak ragal yàlla xam nga naa la ci njëlbeen te ca la nekkoon ca la newoon moo tax mu ne ko bal dañ bu ca dañ ndax ca la nekkoon ca la newoon <laughs> falaa tadal fi tuqaa warusi di njub gi nga newoon it bu ci ragal yàlla la newoon mhm. ci ak njub la newoon mhm. moo tax mu ne ko njub ga nga newoon ak mhm. ragal yàlla ga nga nekkoon ba ci jóg ba ci jóg kay laa yu laa xiyakale isyaan wal fitanu ndax ku ragal yàlla mooy du dajeek isyaan waaye ku jubit du dajeek fitna dëgg la kay yu laa xiyakal mooy na nga sax ci njub ba doo dajeek fitna waaye na nga ragal yàlla ba doo moy sa borom macha allah muy la am solo ah, kon xam naa ci tënk rek indi ma def waaye wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla ni ma ko waxee léegi rek waxtaane ko ku mel ne moom sëriñ Darou Assane Ndiaye dafay géej koo euh, xam ne bu ñu ci soobu woon ba jeex tàkk yitam du yem ak ku yoros kook tànq ca yóbbul la nga koy bàyyi mooy ëpp la nga yóbbu euh, xam naa ñu bàyyi la ci kàddu yi mujj yi rek bu ko defee ñu mën a yëkkati jataay bi nga tàggoo benn yoon waaw xanaa di la sant jërëjëf di la gërëm mhm. di beral ak cant nag suñu suñu suñu goro bi muy nga xam ne goro la ci kër gi dalay ndeysaan wax dëgg yàlla lii bu amee yàlla ak mooma ndax moo ko dox mm-hmm. ñu ko ci sant di ko ci gërëm di ci sant soxnaam mm-hmm. waaye di sant it di mm-hmm. gërëm di la sant yow di la gërëm jërëjëf wax dëgg yàlla xam nañ sa bëgg ak li ngay dox ak kër gi it ñu di leen sant ndax gis nañ ne lu mu xat-xat saa yu mel nii amee faaw ñu dugal ci sëñ Daaru Xasan mënul ñàkk loolu nag day tegtale bu am macha allah bu am ci yéen waaye yitte ak yéene ju ngeen am ci moom diggante ba Jaara rek leneen la woon buñ ci ba mag ñi duggoon xam naa beneen yoon daañu ko fas yéene waxtaane la allah di sant bu baax njaboot ga nga xamante ne fa mm-hmm. te ñuy samay wayjur mm-hmm. sama soxna ñu koy sant bu baax a baax wallaay ñu allah tubaarikàlla <laughs> ma ko jërëjëf jërëjëf kontaan bu baax a jërëjëf euh, Serigne moodo Assane Ndiaye jërëjëf it euh, mbokku téléspectateurs yi nga xam ne yéen a ngi doon ñu doon suivre ci télévision Futurs Médias boobu ba léegi ñu doon waxtaanee kon kenn ci kàngami yoon wi kenn ci magi murid yi Euh, mu di sëriñ Daaru Assane Ndiaye mi nga xam ne wéttalu ko tedd ki di xaadim rasul la woon àndalu àndandow ko tedd ki di xaadim rasul la woon waaye ko sëriñ bi doy la woon la ci lu bëri te loolu feeñ ne bu baax ci biir waxtaan bi ñu leen di dig daje incha allah ci yeneen jataay yoo xam ne daañu fas yéene waxtaane waat yeneen mag nii la ko télévision Futurs Médias fas yéene doxalee euh, ba keroog ñuy àgg ci fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar euh, di bis bi nga xam ne ci la ko tedd ki joxe woon digal ci ñu santale ko suñu borom subhanahu wa taala di gërëm waa ñoom Pape Samba Thiam di gërëm waa bi Ibrahima Cissé remercier euh, Pathé Dia ak mboolem ñi ñu àndal ci liggéey bi Mor ma ñoom ci caméra bi ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant ay eh, ci kon dig daje ci yeneen i jataay eh, ci kanam tuuti waa rédaction bi daañu ñëw ci journal bi ak yeneen di caaju ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ndokkeel ñëpp di bal xaq ñëpp di balu xaq ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërë ngeen jëf